salaamaaleykum say antu not bu Dakar mi di gannaaw bañ leen nuyoo di leen siyaar ki gis fi ma taxaw nga xam ne ah, Sorano la su ku dégg Sorano maanaam wàllu culturel ma fa war a daje kuñ fi woo muy kan kookoy borom five kookoy borom baaru mundi kookoy borom parcelle muy kan Ibro Naajo l'enfant chéri de Parcelles Assainies borom 442 moom nga xam ne fu mu dëgg mu feesal ko fu mu dugg tamit def fa dum gis nga nu mu def mbuur te tamit gis nga nu mu def fee nga xam ma mooy Saint-Louis tey mu wooñu fii nga xam ne mooy Sorano tey gis nga xale yi fii mu taxawee soo gisee nga xam ne carrément tey booy we ak kookoy kan kookoy borom bandi baa ngi nii dama bëgg sama caméraman nga dugg ñu topp ma si biir ñu ànd xool bandi bi mais balaa caag dañuy waxtaan ak moom ku gis kii di nga gis Ibra Naajo fi Ibra Naajo dem di nga ko gis gannaaw boobu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak lu waraloon teewaayam fii. waaw salaamaaleykum wa Bro maa ngi lay siyaar. Mhm. waa DMTV Dakar midi. Dakar midi di leen siyaar wér. Mhm. waaw li war a suñu teewaay fii. because uh, Ibro Naajo suñu jarbaat la ñoo bokk benn deret. bu wootee Sorano ñun amatuñu benn soxla bu dul moom. c'est ça loolu moo ñu fi indi. ñëw tey ñu gisee Ibro c'est la première fois mu ñëw fii nga xam mooy Sorano maanaam public mu yor maanaam xajatul fee nga xam mooy Five fee nga xam mooy Barramundi fee nga xam mooy tey ngeen andi ko fii nga xam mooy Sorano te Sorano lu ko feesal yombul. waaw mais lu ñor rek wadd booy lu fa mën na koo feesal lu ñor rek wadd barke Serigne waaw bu xaayee rek ñor waaw Ibro kese du morom Sorano ñun grand théâtre la ñuy wax ak feneen ak feneen. waaw ah, doo gis slogan bu bees gis nañ dem album bi album bu mu génne mooy album bu neex maanaam slogan bandi bi mooy slogan bandi baa ngi nii loxo yo ma nekkoon. non bandi moom ñëpp ay bandi lañ loxo yu ma nekkoon moom nit ki mën na koo jëlee ci ñu ne. ci cadre mbëggeel moo xam ku nekk rek yaatu na de telle sorte que ku ne mën nga cee am sa analyse bopp mais de temps mais de temps plus que booy bi moom lépp lu mu woy slogan la yéen xam nga loolu bi mu dalee woy ba tey lu mu woy slogan la maanaam du combat quoi. <laughs> kon tey fii ne fa nar a def doom non loolu yàgg na looy wax nii <laughs> dóom kese loolu yàgg na. <laughs> kon baax na gis na koo koy. mook ah, mook waaw mais santaat rek barke Serigne Touba yéen di leen jaajëfal benn saa ndax. macha allah seen taxawaay dafa rafet waaw gis nañ ñoo far na Ibro sama doom baay loo Diouf la sant ma sant Diouf dafa daal ñoo jàppale ko ne dañuy dugaat si biir xool gisaat gis nga ne xale yi niñ taxawee ah ñu fas yéene waxtaan ak moom soxna si gannaaw bañ la nuyoo di la siyaar ñu fekk la fii nga xam mooy Sorano ak looy waajal ak lu waraloon sa teewaay bi wala mbégte moo la dal. waaw dafa mel ni yow dafa mel ni caméra bi ngay daw taxaw nga jàkkaarloo caméra bi ndax lu waraloon sa teewaay fii nii nga xam mooy Sorano. a ah, ñëw bëgg si naajo bi euh, soulagé ak samedi bi am nga rek mooy loolu. mais taxaw waxtaan gis nañ euh, ki nga xam mooy Ibro l'enfant chéri de Parcelles Assainies su tëggee five na ngeen koy dugg moom fees dell su tëggee la nga xam mooy Baramul na ngeen moom fees dell tey muy tëgg c'est la fi nga xam mooy Sorano tey ngeen waajal li nga xam mooy si sañse si baax ak li nga xam mooy ambiance. ah def ba mu baax rek comme d'habitude waa Médina dañ koy bégee bu baax a baax. Médina nga dëkk. ñun Médina lañ dëkk waaw koñu bébé doo mu yàgg ànd ak moom ñu dañ koy bégee bu baax a baax a baax a baax te incha allah day gën a fees comme dab rek. ni muy feesee fépp noonu lay feesee fii tamit. mais nga may moo benn songu naajo wala benn slogan naajo bu muy wax bandi baa ngi nii. waaw loxo yi ma nekkoon. waaw ah, gis nga dañuy dugaat ci biir ba léegi sama cameraman waaw. sama waajee ngi ni nee naa Cheikh moom kiraama yi tey xam naa artiste am la andi muy Ibro ku ko gis xame xam kaak Ibro moom moo waxoon Modou Lo Ama Baldé day daan Tapha am Eumeu Sène Tapha day daan mais suba làmb ji ah waaw suba moom làmb ji moom xam naa ne moom lenn am na moom senegal gépp instant bi ñu ngi ne Siteu day daanu soo moom lenn laa leen mën a xamal soo moom làmba ji si kattan suñu borom man Cheikh Al Maktoum li ma wax loolu borom lax dëri borom tabdil borom basawaay basawaay soo moom surprise dina am man Cheikh maa wax loolu. ah tamit sa Cheikh. Sénégalais suba nañ ubbi seen bët suba surprise day am si làmba ji. Hmm. te gars yi nag bu ñu yaakaar ne suba làmba gaaw lay doon ñu ngi nax seen bopp. suba surprise day man maa wax loolu. te dina am coolu ndaw lu si géew bi. gis li nga xam ne ah, nga gis nga xam mooy Sorano sa nga fi wala nu mu demee non sama artiste laa indi fii Ibra Naajo Ibra Naajo laa indi fii tey waaw xam nga man moom man moom seex sëñ bi moom waaw sëñ bi moom li muy dox si lu muy dox si lu muy mën a dox rek moom si fulla lay dox si farata waaw te sëñ bi moom moom moom ñi muy indi ñëpp dañ ñemeñ sëñ bi boo ragalee sax du ànd ak yow. waaw ah, gis ne fii du faay. non fii du yow man man man ragalu ma loolu man ma pare pour def fii gise ferme ay jinne laa mm. man sëñ bi ay jiine laa yar boo àddi dama leen maîtriser lu ma lu ma lu ma lu may def suñu borom da si àndal fii doyul galan ko waaw fii su ma bëbëlee day fees. Ah. dama koy yebam fees. gars yi nañu ubbi seen bët nag ñoom ñëpp ñu xool booy bi xale bi da si toll te day yëngal. day yëngal ko mooy rakki Mamadou Mbaye dafa xew na gars yi nangu. baaru nangu du curu bañ nañ nangu rek ne moo fi ne. gis ngeen ka seex borom kiraama yi dañuy dugg waaw ba léegi ñoo nii si mbé si mbedd mi fii nga xam ne xool ngeen nit ñi gis nga bis bi gars yëpp nee na naajo la topp dañuy topp dañuy dugg si ambiance rek xool ambiance bi gis nga fans ñi ñëw naajo famille ñi ñooy naajo famille mu ñëw rax waa naajo famille sama sama cameraman waa naajo famille ngi nii waaw ñoo ngi nii taxaw waaw soxna si lu waroon tey sa teewaay fii en tant que nga sol li nga xam mooy naajo famille waaw salaamaaleykum maa ngi ñëpp delloo ziar ñëpp ñun jàppale naajo moo ñu tax wax fa dëgg yàlla parce que dañoo nekk jeune war a jàppale naajo amul lu dul bisam bii kon tey dañ ko war a teewal ñëwal ko sigir ko sagal ko kese nag ñu ànd ak suñu président bi nga xam ne lépp moom la wax fa dëgg yàlla ñun ñii ñëpp ay membre lañ mais nañ ko sant gërëm ko wax fa dëgg yàlla ñun loolu lañ koy ñaanal gudd fan wér gu yaram tey ba naajo famille yi gën a yéeg ci kaw a kaw a kaw a kaw te incha day am parce dañoo jug daal pour jàppale naa ñu daal. dama gis ne fii du five euh, maanaam dafa tëgg li nga xam mooy five feesal ko del tëgg fi nga xam mooy baara mu ni mu feesal ko del keroog ñu dem fi nga xam mooy Mbour Géej mu def fa dóom keroog tamit ñu demaat fi nga xam mooy Saint-Louis waa Saint-Louis di ko ñaan ne kañ la fi naaj tey mu war ñu fi nga xam mooy Sorano ku dégg Sorano nga xam ne du du place bu ndaw tey naajo au Sorano ak nan ngeen waajal li nga xam mooy bés bi eggalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin naajo moom suñu mag la suñu lépp la dañ koy ñaanal rek fi mu jëm yal na ko fa yàlla yóbbu te incha allahu rabi day dem parce que bëgg na nit ñi bëgg na mbooloo mi bëgg na waa naajo famille tellement que ñun li ñu tax a jug daal mooy lépp pour naajo naajo daal incha allahu rabi ca kaw ca kanam rek incha allahu rabi day dem dara mënu koo téye li muy tëgg nag incha allahu rabi day gën a neex incha allah dañuy demaat ba Saint-Louis le 24 ñu ngi fii nii Parcelles Assainies ci stade bi incha allah dañ fay tëgg lu neex yëgal nañ ko ñëpp na ñëpp teew incha allah day neex dina neex dina yëngu. Ah. waaw kay. dafa mel ni wax si foofu la de. mel na na ñëpp waaj le 24 incha allah Parcelles Assainies. bi mais ma ñëw slogan bi nga xam ne mooy 442. ak li nga xam mooy bandi baa ngi nii. Mhm. lu war a slogan boobu noonu. mais bandi baa ngi nii xale yi dañoo pare de. Mm. lu waay waxoon. eh na ca delluwaat. dafa mel ni yéen yéen yéen waa waa ñee ngeen di waxal maanaam loxo ya ma nekkoon. waa loxo ya ma nekkoon daaw man de damaa sonal lool. barki Serigne Touba. lu waxoon na ca delluwaat. e eh, bandi baa ngi soraanoo. ñëw leen. Ah. barke yonent bi. noonu ñu gisaat kenet gis nga ko gis nga lu mu sànce sama caméraman jëlal kii lu mu sànce te lu mu sànce woon baaxul soxna si nuyu nañ la. fay naa la. yaa si jàmm. sant yàlla ba tey lu waroon sa teewaay xam mooy soraanoo. waa ñun naaju moo ñu fi tax ñaw waa naaju famille pour ñaw jàppale ko ñun moom rek la ñuy topp topp ñu keneen mën nañ ne àdduna benn waykat moo am moom la waaw moo tax lool parce que moo fi ne xale yi moom lañ bëgg moo man moo ëpp doole xale yi moom la ñuy topp ñun topp yeen paa topp ñu yeen mère xale yi naajo la ñuy topp topp ñu keneen benn waykat am mais dama gis li nga xam ne mooy euh, euh, sa five da ngeen ko du moom fees maanaam public boobu noonu moom nar a fi nga xam ne mooy euh, euh, Sorano tey nga gis ko mu ñëw ambiance te c'est fi nga xam mooy mooy Sorano. ah Naajo tëgg na saal yu ëpp fii kon lii jaaxalu ko lii dañoo ñëw nuyoo nii rek liñ naan lancement la firme bi ñëwagul. ba gars bi la. waaw waaw dañuy waajal lu neex ku bëgg daal ñëwal topp Naajo ànd ak waa Naajo famille dëkk bi yëngu. mais dama bëggoon a xam nga may benn son rek bi nga xam mooy son Naajo wala benn kii. damaa amadul woon. <laughs> ah en tant que top naaj mënoo sama. sama baat dafa neexul. waaw ah, gis nga ko dañuy dugaat feneen rek ñu xoolaat ñeneen ñi. waaw gis nga ko moom tamit naaja famille la bokk. ku wax siyaar naa la. bëggee naa la. si jàmm. sant yàlla bu baax te lu waroon nga xam mooy kii bi. xanaa bëgg naajo rek. bëgg naajo rek parce que jaral nañu lu nekk. ba tax mm, def nañ lu nekk daal pour mu jëm kanam. ba tey ñoo ngi si te duñ ma sa bàyyi man moom dama dama sama place damay pose ongul crayon sil manucure xiq lépp damay fay de waaw mën na nekk amul garaawul mais damay jël sama foto def fa naajo pour bëgg ko kese waaw tey muy tëgg c'est la première fois tëgg fii nga xam mooy euh, Sorano maanaam ko gis Sorano du saal bu ndaw ba gis naa loolu waaw parce que dafa mel ni fii fi nañu xoolee billets yi ki ma tasanteel kenn ko présenté si mim réew mu yàgg maa bégloo yàgg li nga xam ne bégloo ma man ñu koy ne ngàtte borom faas ah ngàtte ziar naa la. waaye sant naa la bu baax ah, yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax ah, lu waroon tey sa teewaay ah, fi nga xam mooy Sorano. waaw tey moom sama jigéen moo xewle mi Simon mi S event mu nekk koo xamante ne ku sori si man mm-hmm. waaw parce que kooku noonu lépp lu mu soxla rek. xam nga ñu dañuy bàyyi lépp luñ jàpp ñu jàppale ko parce que vraiment day dox si social ba pare xam nga xàmmeewul ngeen teg dëj lépp lu waaye nekk rek da si ñëw fekk si la moo tax moom bu soxlaa rek ñun dañ koy fekk si ba mu jeex sans arrêt quoi. baax ngeen choisir nga xam mooy Ibro andi ko fi nga xam mooy Sorano. waaw Ibro dafa nekk koo xamante ne nen mu nekk koo xam dafa xew actuellement nii ba pare jeunesse bi boo ko ba pare moom tamit Simon actuellement nii boo xoolee événement bi moo ko tuddee maanaam sargal maanaam presque mun naa ne jeunesse bi la jeunesse bi moo tax def lii yëpp. parce que Simon lépp képp ku ko xam-xam ne carrément moom jeunesse bee ko ñor malgré xale la mais kilifa la comprendre nga moo tax tey mu xool ne jeunesse bi bëgg nañu Ibro moo tax mu ne tey daal moom na jël Ibro première partie bi comme que mu ngi doog a dugg si li nga xamante ne mooy événementiel mu jël Ibro pour première partie mais ñaan nañ yàlla àdduna di dox dox ba mu jël Wally Seck ak keneen ak keneen incha allah. dafa mel ne Ibro mi ngeen jël nii du du du artiste ndaw maanaam public Ibro nar nga xam ne mooy Sorano. bon du artiste bu ndaw sérieusement parle parce que artiste boo xam ne day màgg la comprendre parce que Ibro ku ko xool xam ne almadi xajutu fa comprendre gis nañu almadi xajutu fa ñu nekk pourquoi pas ñu jël ko indi ko fi nga mooy Sorano te gis nañu carrément bañ ko indee Sorano actuellement ni gars ngi dugg vraiment macha allah te dañuy ñaan yàlla tamit xam nga lépp li nga xamante ne tey event xalaat na ko si bés bi mi Simon mënaan nga yàlla borom sottil ko parce que amuñu fayam daal parce que quartier bi ñëpp sant nañ gërëm nañ ko waaw. ñoo ngi lay nekk si liggéey sama kéemaan dama bëgg ñu dugg si biir xool jëlee ma ñii si bunt bi jëlee ma ñii di dugg jëlee ma ñii di dugg gis nga leen ñooñ di dugg jëlee leen ñooñ di dugg ñëw fi nga xam mooy naajo bi ñoom nee na ñoom naajo rek lañuy ñuy topp nee naajo rek la ñuy topp <laughs> naajo rek la ñuy topp ah, gis ngeen ko Baye Bara Bara kaa ñu jël la Bara naajo. Bada naajoo ngi nii Bada Bada Bada gannaaw ba ñu nuyoo di la siyaar tey ñu fekk la fi nga xam mooy euh, Sorano nga ñoo jàppale sa xarit sa àndandoo sa lépp muy Ibro sa papa sax mën naa ko muy Ibro naajoo. Mhm. waaw ah maa di nuyu di leen siyaar yéen ñëpp mais ceeb sëñ sëñ de. mais yaa ma yaa nga sëñ yaa ngi baax yaa xam nga lan laay wax sa caméraman bu mu lox bu mu def dara bu mu guuse ndax si biir dafa nar a yëngatu. nga ni ma. te action bu ko raw nag naka leer na ñàkk na image du jour. laa ilaha illallah. waa ji la mu préparé. la mu nar. non du moromu booy. barki alxuraan du moromu booy. mais dafa mel ni da waa Five dañ nga doo dootu fa tëggati moo tax ñu andi ko fi nga xam mooy Sorano. waaw waxoon naa ko ne ins bi xajatuñu Five comprendre nga. dañuy génn mais léegi nag gars yi ñu ngi si teg seen bët dañuy génn ñëw nañ Sorano après dañoo nar a dem teere ak fee. ñu ko wax de akapes war a dem stade Parcelles grand théâtre xam nga lëmbe ko après laal international boobu la ci naajo waaw moom kese ah. te mën a xaar si biir nga yëngal xaar ñu si biir ah. hmm. ko koy baral naajo mais teewut dama nar a jël dama nar a jël xaaral dama nar a jël sama doom nday waaw ki ma war a jël ki ma war a jël kenn du ko présente si miim réew yaa ngi direct menul la melu gannaaw bañ la nuyoo di la siyaar koo gis xamee ko Ibro. waaw ñu taxaw ki nga xam mooy Sidi Diop di ko gis xam ko si Sidi Diop mais dafa ñëw jàppale ki nga xam mooy doom ndeyam di Ibro Naajo Sidi nuyu naa la. avant tout d'abord maa lay fay sama nit sama xarit sama doom ndey nga yow waaye boobu fu daje. jox nga ma cër jox naa la cër waaw foofu moom faaw ñu neexal ko mu neex waaw. tey ñu gis Ibro jógee fi nga xam mooy Five nar ñu tëgg fii nga xam mooy Sorano. waaw Ibro Naajo moom xam nga Wolof Njaay moo naan daal moo nekkee ndaw boo ko gëmee di nga dem da koo gëm tey moo tax mu ñëw Sorano fii te fii am naa yaakaar ni te ma koo gëm sax aw ma yaakaar dama koo gëm ni que fii moom maanaam danañ ko wàccee ba zéro déjà salle bi commencé naa fees waaw te nga xamante ni chaque dimanche. il est parmi dans les routes des moom moo ci man foofu kenn du moom ci biir réew. daf mel ñu xaar la ci biir. Ah, xaar leen ma ci biir ci biir tey waat tey damay baatare. Ah. waat kii nañ ci biir. kon baax sama kenn maanaam bu nga topp ma ci biir ñu dugg xool. ñoo ngi fi nga xam mooy Sorano ki ma toogal nag kenn du ko présenté même réew su feccee mu neex waaye tamit su yëngalee ndigali mu neex ko koy Khady Ndiaye doomu ndey Ibra Naajo ah le grand danseur du monde nuyu naa la. maa waaw. jàmm tey Khady Ndiaye ñu gis leen euh, nga ñëw fi nga xam ne mooy euh, Sorano c'est la première fois Ibro nga xam ne mooy euh, Baara Mbundi génn nga xam ne fi nga xam ne mooy Five tey ñëw fi nga xam ne mooy mooy Sorano. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp di nuy sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama famille di nuyu fans Khady Ndiaye képp kuy bëgg Khady Ndiaye waa naajo bu ñëwee fii dafay war ñëw parce que ñëw na fu mu miin ñëw na fu ko ñëpp bëgg. mu nekk sama mag nekk sama papa nekk sama xarit yàlla def na ne man ak moom du aar moo ñu boole naa man ak moom yàgg na ñu bëri dañoo yaakaar ne man ak moom dañoo bokk du aar moom a boole ak moom parce que nekkul programme ba programme la ñuy gisante heure bu ma ko bëggee gis dama koy gis këram heure ma neex laa fay dem tëdd yàlla mi ma tiim xam na loolu. naal ke benn jour mi nga xam ne mooy mooy five nga ne naay sa papa la. day am lu ko métti naa su ma su ma bëggee day bëgg su ma amee defet day am defet man xam naa fi mu féete te man tamit xam naa fi mu féete. tey ñu gis li nga xam ne mooy Sorano Khady Ndiaye tey nan la nar a dugg sa ak ban am la nar àndi ndax li nga xam ne mooy soraanoo di du faayef. non loolu moom boo ma ko laajee da ngeen di yàq ndax man yàgg naa toj ci toj laay dëkk man su ma xëyee lundi boo la ma woowee damay toj mardi damay toj mercredi damay toj c'est la première fois nag ngeen tiimalu ma micro bugguma ko mais li ko jar rek moo ko jar muy naa jox. bu ñu tàllee micro da waxuma ci naaj boobaa du ma ngor sama téléphone sax moom laa def fond d'écran kon xam nga ne bëgg bi ma ko bëgg nëbbu ma ko voilà. tey noo nooy waajal li nga xam ne mooy ambiance bi ana fer yi. fer ci biir te nee naa la bi naa ko dëbb ba mu mokk. nee naa ko dëbbate ba mu mokk. ànd ak sama xarit aw bambara. mu nekk sama rak bu nekk sama xarit. ñu fas yéene ñëw rek jàppale ma ci bës bi ma koy sant di ko gërëm ndax bu ko neexoon du ko def mais heure bu ma ko woowee ne ko awa dañoo am programme day ñëw. te man ak moom du aar bii moo tax ñu xamante man ak moom yàgg na dañ doon bokk benn lal pour tëdd pour nit ñi xam loolu du tey lañ ànd man ak moom ànd nañ bu yàgg ànd bu rafet tey ngeen gis lu garaaw xadinaajo aw banaya kon baa la si biir xaar ma ci biir amul benn problème ah. dégg nga Xadin Njaay nee ñu xaar ko si biir moo aw banaya mais nañu dugg ba léegi ki ma toogal na kenn du ko présenté si miro ah Cheikh Ramdan le synapole du peuple lu mu synapole baaxul borom borom Ramdan Sok doomu ndey Bas Cung doomu nday Sidi Diop doomu nday Naajo siyaar naa la doomu nday waaw doolu siyaar waaw di nuyu Sénégal yëpp di la nuyu suma xarit bi waaw di nuyu àdduna daal waaw di nuyu ñëpp. mais tey ñu gis li nga xam ne mooy Ibro tëgg fi nga xam mooy Sorano c'est la première fois tey c'est la fois nga ñëw fi nga xam mooy Sorano Ibro di tëgg. waaw xam nga naaj moom dafa nekk Baye Fall nekk nit ku baax bëgg ñëpp te bu songee Sorano parcelle 1 ba 26 day yëngatu Guédiawaye yëngatu Pikine yëngatu Sénégal yëngatu wala waral suñ teewaay rek waaw. tey nan la li nga xam ne mooy ambiance euh, ak li nga xam ne mooy euh, mobilisation. waaw ànd ak ñoom ci répétition yi rek man damaa mujj na ko artiste xanaa yow combat nga am xam naa ne ginnaaw. dama doon fëx dama doon fëx nii. dana parce que saa yi. mais mais Fadel yow li ngay fecc ci clip sa âge ah mais nekk xale rek nekk xale rek waaw nekk xale rek gëm som boobu tuxuma naanu ma foowu ma foo jaar ma mën li may def waaw. dañoo gis li nga xam ne euh, mooy euh, clipu Bass Thioung nga fecc fa lu rëy ñëwaat li nga xam mooy clipu naajo barki Demba Ndiaye bandi baa ngi ni nga fecc fa lu rëy Fadel lan moom yàlla dafa mooy suma patron. mooy suma lépp tey nu ma mel yàlla jëmmi moom la muy Bassirou Alaaji Bassirou Dia yàlla fi yàgg te wér waaw nu ma ko ñëpp ñaanal yàlla fi yàgg te wér nu ma mel moom la tey suma ñëwee di seel naajo bi yàlla ak moom la naajo di sama deuxième patron ah Bass mooy sama premier patron naajo mooy sama deuxième patron ndax ñoom ñaar ñoo may fay ñoom ñaar laa gëm ñoom ñaar laa yaakaar kon lu ñuy def bu ñuy tourné kilomètre damay si def sama ként laay kattan lu ma am ak lu ma amul lépp laa ciy def su ma énergie fecc boo xalaat ci àdduna ma war koo génne ci fecc bi dama koy def ñoom ñaar parce que dañ maa bëgg xam fi ñu ma teg waaw ñuy xale may xale bu ndaw tamit di ànd ak ñoom foowu ma tuxuma naanuma volewu ma àdduna ñëpp xamee nan ma loolu man Fadel waaw du ma tux du ma naan du ma vole waaw dafuma yu ñàkk fayda yooyu moo tax dama am doolee fecc dama am doolee fecc waaw soo feccee gars yi kontaan mais soo yëkkatee rek gars yi dañuy yàqamte Fadel génn waaw jamono ji foo tourné Fadel Fadel la ñuy wax tey ngeen tëgg fi nga xam ne mooy Sorano ku xam Sorano du faayef ku xam Sorano du fee nga xam mooy Baara Mundi te ku xam Sorano tamit du xam mooy Vogue te gis naa ni nga def Mbour gis naa li nga xam def mooy li nga xam moo nga def Saint-Louis tey ngeen nar tëgg fi nga xam mooy Sorano ban façon fecc nga andi ban façon danse nga war a wan li nga xam mooy sax fans ñu lay seetaan. non Sorano tey day wàcc ko dañ koy def comme ni ñu def faayef rek Sorano Sorano Sorano. gars yi ñun génne spectacle yu mag ay sor ay grand théâtre salle yu mag yëpp génne nañ fa kon Sorano bii duñu jaaxal kon Sorano bii buñ fi ñëwee tey dañ koy def comme ni ñuy def five di dëbb ni ñuy dëbbee five noonu la ñuy dëbbee tey waaw loolu mooy secret ba pare tamit artistes si nañ jéem am ñaanu yaay. am nga ni ma. ñaanu yaay ñaanu waajur sa ndey ak sa baay nan la ñaanal buñ la ñaanalee mbindeef mënuloo dara takkal nan la sëriñ bi ñëw takkal bàyyi de bu gën a mag si àdduna te amoo sa ñaanu waajur moog zéro doo dem fenn. dem leen am ñaanu waajur liggéey artiste da liggéey ne pat daf jàpp sa ñàmb man doo ma gisee ay réseaux sociaux may wax ay diw nangam déedéet man newuma ci gem boobu ay fecckat bi maa na maay maay patron bi maay déedéet damay liggéey ne pat ba pare fecc yàggul fecc ñun duñu am man duma am 40 ans di fecc xalaatuma ko bientôt incha allah rab yi damay bàyyi fecc léegi nekk ci leneen am beneen liggéey mais c'est vrai fecc woyul dañ wax dëgg fecckat yi nañ jéem a am fula am fayda liggéey jàppale seeni i waajur jëlal El Hadj. waaw Ndakaaru ñu ki nga xam ne mooy El Hadj l'enfant chéri de la Médina la Neymar de la musique sénégalaise tey mu ñëw jàppale ki nga xam mooy frère am xaritam muy Ibro te relation ak sama maa ngi nuyu Dakar midi yëpp. tey nag sama jabar moo xewle. Mhm. muy S Even mhm. muy Simone. Simon Ba di sama jabar moom tey moo woote bës bi nag moo ñëw gunge ko far nag mu def ko ak Ibro sama frère moo tax ma bàyyi lépp ma ne xaaral ma ñëw taaral bés bi loolu kese la waaw moom fi indi am mais gis El li nga xam ne mooy euh, nga génn benn son jéelaani bi def tukkal àdduna la ma secret El mooy job waaw nekk si li ma war a nekk bañ a dugg lu sama nekkul focus sama liggéey et puis surtout loolu kese la loolu mooy secret El Hadj Keita waaw waaw. mën nañoo xam ne El Hadj yëngal biir. waaw bien sûr dañ koy yëngal kañ. balaa maa dem kañ foo mu yëngal. jeex na te ma laa bàyyi nga daw. jeex na mon ami bay daaru bi. Sorano am na lu tax ma def loolu xale bi xew la tey man maa ko jur maa ko yar muy xale bu yaru. xale bu baax xale bu am jom fexe nag ba marqué empreinte am ci Parcelles Assainies Parcelles nag dafa am ñaari vedette yu fa nekk kenn ki c'est un grand lutteur ñu koy wax Modou Lo tàccu leen loolu ma ne ana waa Modou Lo yi waay ana ci bëgg Modou Lo waaye Modou xarañ Lo waay bu nu paasee loolu dugg nag ci sama doom sama xarit di ndaanaan ñëpp ràññee ko xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag kooku mooy kan mooy Ibra Naajo le grand chanteur tàccu leen ma Ibra tàccuwaat leen Ibra Naajo waaye bisimilah jàmm ah yaakaar naa ni nag tey incha allahu taala Sorano dina yëngatu parce que xale bi war a yéeg léegi nii bu soobee yàlla bu yéegee dingeen ngeen xam ni Sorano am na gan waaye nag Parcelles Assainies yàgg na ci ndaanaan Parcelles Assainies yàgg na ci sport yàgg na ci culture loolu moo tax ñaari xale yi nga xam ni ñoom la parcelle génne ñu maase jamono kii di bëre kii di way tubar fa kàlla macha allah loolu Parcelles Assainies rek ñoo ko am kon waa Sorano tàccu leen seen bopp. ana taalibe Seex yi Serigne Babacar bëgg rek dara man. waye waye mbay si jar na ko julli te tay ju bay elisa waye mbay si jar na ko julli arab lo ko la ja mbay si jar na ko mbay te ta paatu julli te tay ju bay la xala la patu tor sëriñ Babacar mo na ngon la ya yàggali li subvention. ndeysaan takkutaan la waay. Serigne Babacar. waaye may si jar na ko. ala bëgg soxna mu jaay faama. waaye may si jar na ko. yorul fi toll ba bali yàlla ratatan moo di kan. abatata bay. waaw. may si jar na ko. yàggali li subvention. dinaa la waay. koy saal ñu koy saal Why? yal na ko te bu la kon babal yal nañ rafet ak moo di Ababacar Mbaye waaw Mbaye si ko yow daal li nit Elas kai tropi Ko medina Do mi gar diga Bayi falu ba Elas kai do Do mi gar diga Mbesi jar na ko Bila wayi Aye mbesi jar na ko Bila wayi Bila wayi elas kai do Mono la kalpa bagi enana Ndan modi Bila mbesi jar na ko yow da nga gis lu baax ñun dinaa la way li nga gars yi fay waaye may si ko dal dal bul ko saaga yërëmal ma ko waaye way sama lay may na ko bu ko dal dal bul ko saaga jurum la bàyyi lay ko ñaan ñëw na ay waay waay si woo elas kayta naa jóg naa sama xarit ba kayta aa naa jóg naa jóg nga ni ma waya naa naajo hélas naajo ak borom borom métti na borom métti na xalilullah yaay xaritu yàlla Ibrahima xalilullah yéen ñëw fi mu di hélas doo fi ñaaw duxal hélas sama xarit la hélas hélas hélas waay waay kontaan naa Yes, I love bi mooy mayub jàmm mayub jàmm waaye bu ko soobee bu xañum jàmm yi wóor na di la ñaan ay waay boo ñaanee bur ni may la yone noo saay saay man di mër ndax fàcc duree pare na yone noo saay saay man di mër bi lay fàcc duree pare na yow déggal si man bi baax na bokkum yaayu elbee yow déggal Simon mi baax la yàlla fay. dinaa la way gore nga. yow de doo saay saay. ak di moore. bàcc turee gore na. bàcc bi dëkkal meen. man di moore. bàcc turee gore na. yow de doo saay saay. man di moore. bàcc turee gore na. kay leen ñu lëmbal. xali kay dangay lëmbal. xali. xali kay dafay lëmbal.

tout espace la Mario Mbaye Mario Mbaye bu boole tout espace la Mario Mbaye bu boole tout espace la wo wo wo wo Mario Mbaye Mario tout espace la Mario Mbaye bu boole tout espace la Mario yow bay bu bare la bu tubi espace la dinaa ko bay bari yow bay ndax gis nga yaa la buur bi mooy mayu jaam bi jaamam waaye bu ko soobee bu xañu jaam lii wóor na dina jaam ay waaw boo ñani buur bi may la la ñëw ba tey mani boo ñaanee buur bi may la ba ka seen doomi Medina yeye lu ma woo papa si bu ba ka seen doomi Medina baa ngi ànd ko rek bu ba ka seen yone baax moo tax na kenn gënu kenn kenn gënu kenn yàlla na boole moom ñun ñëpp daal fii mu jur gënu kenn mooy ci biir suuf waaye yow mi gën a takku fii te sama ñëw du nga bay ay waay dox wi jigéen ñi guddi wax leen ñu di l'état di l'état di l'état sa way li jëray man kuy sa jaatu yaay jaay yow Modou Faye nga fay ba mbëri fi li mën a say so te ci jàmm rek la kuy jaat bu yëngu jaat yi ñoom dañ ñoo ko yor te ci dañu baax jaat yi dafay réew mbëri fi ñu la ci koy jaat waaw waaw saa yu jël maa yëkkatu sa carte yaay jaayu yow mu du fay dégal dégal ameen an baax na

Demba Faali maa wa joore ñu jënd su ma sama yaay taloon dafa mi ci mer góor mi may sose yaay taay sose yaay bi lay doomi góor ngoom yow jël fir nga fir nga jalal waay waay waay yi ganaay yi ma du man sama yaay jaloon dafa mimi mel ko for yaay taaw yow jëkk di bu jëkk ba dama ko jëkk dëgg dara billahi billahi gor nga dafa faali ma wa joore yow buur ku ma sama yaay jaloon moo caabe ma way la yow ay sa caam du mooy sa yaay yaay billahi yaay daaw daaw way yi gër maa yëkkatu dafa faali ma wa joore ba sama yaay jaloor moolu jaabe moto ko fo dem bi nen ma leer nen ma sak waay waay ma sikil waa gàpp jamaa su fay ñëw na la ki fay dige yaa seen joojo neexan mbaay séeréer bi ñu ko ci du ay sama ay sa yaay ko yéen ñu dañuy ñaan yàlla aji gor la tey jóg dafay waral di jooy mu soo def lu ñaaw sama yaay aawal moo tax ma réew man ay wuy ay ay wuy ay man yow sama yaay aawal moo tax ma réew man ku ci bëgg sa yaay awul mooy regaay ku ko ci aw rek yàlla nga gisante ak Seydina Muhammad ana ñu bëgg seen yaay ana seen yaay ji aw sama moo tax ma réew sama yaay awala moo tax ma réew man yaay njëkk fuut njëkk paase sama biir kër bàyyi yaay naw na la awata tantu diggante bi sëy ba dee saa bàyyi toog ci di gis yar dina di na ma tàkkal wuutu ma ko nangu du war la waaw waaw mi lay wayu jël naa yëkkatu yow sama yaay waaw waaw moo tax ma réew ma la bu ñu doom yi aaw yëngatu yaa ñëkk a fóot ñëkk a paase sama biir kër bàyyi moo aafiya yaay naw naa la war di yàq di fóot di goro di déngal jëkkër gar bi la awo gar bi la aywa daway li jar na yëngatu ñu xoole la mbobin la ba ñëw na dinaa la wayal Bagaye Mbaye doomi Garmi Goundou la momin la bu ma waxu dara lii neex na mu ne dama juum xaaluma Bagaye Mbaye man naw naa la Bagaye waaw sama xarit bee waaw ay dogo Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ibro ey bul faale ñi lay xalab raw ñu bëgg la def bul faale ñi lay xalab Ibro danga raw ñu bëgg la def yaay doomi parcelle doo ragal ku dëkk parcelle doo ragal yaa ma woo ma ñëw ba ma woowee da may dikk parce que nu musicien yi lay waxal ku ci am sa aar na nga te bañ ko saam ndax aar bi dafa aar bi daf ku nekk nga far Ibro yaay nit ku baax di dem one two three four jigéen jigéen jigéen jigéen jigéen dagg sa dugg i e sa dugg naa waay dagg sa dugg sa caabu yaay juugal yi ku bàcce sa dugg waay ma indi lu bees bataay baba sa baay borom pikit no bataay sa baay baay ya ya jara jara rapusi ya ñott nga ko ba mu teg ñottil mu ñëw bul tiit bul daw bul gersu muy raw xoolal lu jot di géej juddu ci ndox mi màggee ci ndox mi lu jot di géej ragal du jéggi raay bu nawet du jéggi raay aca rota ki samax rota ki samax ki samax ki samax ki samax rota ma feccal lii ana caati fii xanaa mu lay caat kuy sa caati yaay sa loxo da ko waay ata ñu ne eh rata ki tabax rata ki tabax ki tabax ki tabax ki tabax ki bro fii dafa mel ni amul ay caat mais ana caati amul caati ana caati taaw léegi ana digg yi ana digg yi eh, ay digg am de ay digg am de ñu dem kay wurata ci sama wurata ci sama tartib wuy sama ay wurata dañuy ñaan yàlla jërëjëf Dago kontaan naa